auzu billah bismillah inna waliyallah wama tawfiqi illa billah mbokki jullit yi mbokki taalibéy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe Saliou Diop moo leen nuyu di leen ziara te di leen baalu àq te di leen baalu àq ci weeru tedd yi di ñaan yàlla nu yàlla suñ borom boole jéggal di jaare foofu di ñaanal suñ Muntaxa Mbàkke xalifatul aam kuri muridiya yàlla ko yàlla suñu borom yàggal fi te wéral ay cëram manim naar liggéeyal maamam ja Seexul Xadim lépp mu yàggal ko ci ni mu ko bëggee ànd ko njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ak ñun ñu di taalibeem di fa jaare tamit di nuyu suñu Cheikh Anta Gueye xam ni moom lañ àndal liggéey bi di ko ñaanal yàlla suñu borom kàttanal ko defal ko tawféex ba nim naar lépp moom itam mu yeggal ko ci ni mu ko bëggee ñu fas yéenoon a ñëwaat ak yéen ci li nga xam ne nii mooy yóbbalu tay bi mu mel ni démb ñi ngi tolloon ci liñ wax ni sëriñ bi daana def ay bayit daa ko yót Fatima Jaxate Kala ngir mu ko koy tombal ba mujj gi faatuma Jaxate Kala ni ko deel indi may mokkal waaye man mënatuma tomb maanaam nga xam ni sëriñ bi raw na ko ci biir njàngam moomu yépp nag wax nañ ni moom sëriñ bi demoon na ba ñu baree bari ci donga yi Maam Mor Anta ci moom lañu gën a xeemee ma jànge ngir leeroonu làmmiñam lool wax nañ ni maanaam sëñ Mamour Anta Sali Mbàkke di waajuram mu góor dafa xawoon a bar wax nañ ni Mamour Anta Sali daana ko jàngal maanaam daana ko sax bind boo xam ni ka ko war a jàng ñëwaguloon ngir bu ñëwee sëriñ bi sako ko maanaam sëriñ sëñ Mamour Anta Sali mi waajuram mu góor daana ko sax maanaam man bu ma mosaana war a jàng si te ñëwaguma Maam Mor Anta Sali sako bind sama bind ngir man su ma ñëwee sëriñ bi sawaat ma ko te wax nañ jamono yooyu tollugutoon fi foofu noonu maanaam fi nga xam ni mbind mi ko sëñ Maam Mor daan sax tollugu fa woon waaye teew daana ko mën a téye ba borom mbind bi bu ñëwee mu sawaat ko ko maanaam nga xam ni kon neexum xel mi doon wax démb ñëwaat na foofu itam loolu sëriñ Mouhamadou Lamine Diop moo ko wax ci irwaaw ci téere boobu ci la taalif mawaahibul xudduus mi nga xam ne ummul barahin la ciy way wax nañ ni sëriñ Mamoor Anta Sali jàngal na ko ñaari doomam muy sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ak sëriñ Aafiya ba tey ci la taalif jawharu nafiis ak mulayinu sudur waaye masaalikul jinaan mi ngi ko woyee Mbàkke Bawol nee nañ itam daana dem ci benn naar bu ñuy wax muhammadu alyadaali daa fa jàng bayaan ak mandéef naar boobu barabam ma nga ca walilaahi alhamd diir bi bépp nag wax nañ ni sëriñ Tuubaa yéeme na lool ba yéemoon ñu nekkoon lépp waaye weesuwutoon jàng ak jàngale ak taalif ak jëfe xam-xam teg ci déggaloon maam Mor Anta lool mi nga moom la nekkaloon mu nekkoon waajuram bu góor nga xam ni maanaam loolu it manees na ci jàng ni waajur liñ koy waxee ci wolof ni doj la doom di nen waaye tamit ak nit ki wilaaye bu mën a am bu ko yàlla suñu boroom mën a dénk war naa xam ni waajur du moor du moroom donte bure dee waajuram woowu jàngul walla xam-xamam soriwu tam waru ko koo jaay warut doxe nenn ci kanamam kenn nii laa mel ak nu waajuram mën a moom ndax yàlla suñ boroom mooy seddale te mooy xool ku ci nekk la ko doy mu jox ko kon dañuy taxawlu foofu suñuy kàddu rek ba baneen yoon di ñaan yàlla nu yàlla suñu boroom defal kooruk jàmm waltuf binaa wa qawinaa wa kullana wa hab lana al xusna al xitaami rabbana wasalliyan ala nabi wasallimi waqdi bi xaajat kulli muslimi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu